je euh, bonjour à tout le monde. Euh, nous sommes aujourd'hui ici à l'école Cheikh Ibrafal. En tant qu'ancien élève de l'école, nous avons une association dénommée ASF, Association des anciens élèves de l'école Cheikh Ibrafal. Nous sommes constitués depuis euh, le mois de mars passé 2022 on est aujourd'hui au mois d'août 2023, donc juste à 17 mois. on est constitué et nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour honorer un engagement que nous avions déjà fait. Mais l'engagement, c'était pas simplement de faire aujourd'hui ce que nous avons fait, mais c'était de construire une classe ici à l'école. On avait fait un budget et on travaille là-dessus. Mais au nom de tous les membres de l'association des anciens directeurs de l'école, en commençant par le président Mansour Gueye qui n'est pas là, qui n'est pas aussi sur le Sénégal, et de tous ses membres, ceux qui sont ici au Sénégal et ceux qui sont dans la diaspora. Nous leur disons vraiment merci pour cette grande contribution que vous avez faite, n'est-ce pas, pour honorer aujourd'hui quand même un engagement, si je peux le dire ainsi. L'engagement, c'était de faire la classe comme je l'ai dit tantôt, mais on, est, on a vu qu'actuellement à l'école, on est dans une phase de construction d'une classe. On ne pouvait pas rester comme ça dans dans la muette, on a préféré apporter une contribution d'une valeur d'un million de francs CFA que nous mettons à la disposition du CGE, à la disposition également du directeur de l'école et également les membres du direct social qui étaient venus ici. D'abord, nous allons d'abord présenter nos, nos vives félicitations à l'endroit de, l'école avec ses résultats brillants notamment qu'il a obtenus cette année au cours, de, au des années passées. On a su vraiment comprendre qu'ils sont en train de de maintenir le cap que nous avions laissé ici depuis notre tendre enfance jusqu'à nos jours. Mais également, nous, allons remercier la présence de notre très cher doyen, M. Sadir Salle, qui était là, qui avait représenté non seulement le chef du quartier, mais l'inspecteur départemental de la formation de, de mais aussi le comité du dialogue social de Mendefal et le comité du quartier de Mendefal. Nous avons également à remercier la présence des enseignants qui étaient là, qui ont ménagé aucun effort pour quand même contribuer à, la bonne formation de nos frères qui sont là, ou de nos fils qui sont là, ou de nos filles qui, sont ici à l'école. Nous leur disons également un grand merci. On voit la grande contribution qu'ils sont en train de faire pour la bonne marche des choses ici à, à Thiès, à Bédéfal, surtout particulièrement. Et donc, comme on l'a dit ici tantôt, au-delà des remerciements, nous invitons toutes les personnes qui ont été de passage ici à l'école, L'école a été créée depuis 1963. On est aujourd'hui en 2023, 60 ans déjà, l'existence de l'école. On voit que l'école aujourd'hui est à un état de délabrement un peu avancé. Peut-être que de visu, on ne peut pas en remarquer. Ce qu'on voit, c'est la peinture, la belle, les belles images et tout. Mais nous avons l'intention de faire comme on l'a fait aujourd'hui, chaque année, quand même, la même, donc, euh, euh, pas, la même manière ou bien augmenter ce que nous avons contribué aujourd'hui. Et pour ce faire, nous invitons toutes les personnes et tous les anciens élèves de l'école à participer dans notre association, association des anciens élèves de l'école Cheikh Libre et de toutes générations confondues. Nous leur tendons la main à venir nous rejoindre quand même dans, cette association qui a juste pour but de rendre l'école meilleure. Cette école, elle est la nôtre, n'est-ce pas Nous comptons l'entretenir, nous comptons vitalement la faire avancer sur toutes ses formes. Au-delà de l'aspect physique, de l'environnemental, et, mais nous avons également le vouloir de contribuer quand même bon, à sa réussite. Nous avons une commission éducation peut-être qui, peut-être un jour, certainement, ils ont un programme qu'ils vont mettre en place pour accompagner les enseignants ou bien l'équipe pédagogique dans son ensemble, de voir comment est-ce qu'ils comptent faire pour pouvoir quand même contribuer pédagogiquement pour l'effort quand même de l'excellence dans l'école. C'est ce que nous, nous comptons faire. Nous avons également l'ambition d'accompagner l'école dans beaucoup d'affaires, surtout sur le plan de l'excellence. Peut-être qu'un jour viendra, dans les, après les compositions, on va venir en parler avec les directeurs. On peut faire quand même une cérémonie de remise de, diplômes ou bien de dons de fournitures à l'endroit des élèves les meilleurs, afin de booster les autres, notamment, notamment à, à, davantage, à être quand même parmi les meilleurs. Et donc, du coup, euh, le message que nous allons lancer aujourd'hui, c'est de demander à euh, toutes les personnes, à tous les anciens élèves, et pris de bonne foi pour quand même la persévérance de l'école, nous les engageons à venir nous rejoindre dans ce combat, un combat noble tellement pour renforcer quand même l'école médinefale et pourquoi pas aller au-delà de cette école pour lui faire quand même, comme l'a si bien dit le directeur tout à l'heure, il dit qu'on veut faire de l'école au moins un groupe scolaire. Comme ça, on va avoir école chef 1 et 2. Pourquoi pas, on peut pas faire la reconversion du CEM, de, de de l'école primaire quand même à un collège, comme l'a cibé dit tout de suite que le directeur. C'est possible. Tout ça, c'est de l'apanage de, la, hiérarchie qui va décider de la sorte. Mais nous, nous comptons donc apporter notre pierre pour cette édification soit une réalité quand même ici à Médinefal. Vraiment, c'est ce que nous comptons à dire. Nous remercions tout le monde quand même aussi présent et ceux qui ne sont pas également là. Vraiment, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. ñi nuyu ñëpp ñi nga xam ni tey ñoo teew fii ci école bi ñu nekk nii muy école Mame Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ni fii la ñu jàngee bi ñu nekkee xale ñu jàngee fi liir jàngee fi wàññi compter jàngee fi bind ñu daral ñu suñuy suñu gone léegi ñu école bi tey ñu ñëwoon fii en tant que ancien élève de lécole école Cheikh Ibrahima amoon luñ ñu fi amoon yéene def ànd ko ak waa école bi le dee woon fi daaw ci mois de mars ñu am benn association boo xam ci mois de mars la parce que le 12 mars nous avons une première association une assemblée générale constitutive kon donc boobu date boobu mooy naissance su association bi ba tey jii ñu ci août 2023 mu nekk 17 mois donc li ñu ci mën a xam moo kon mais góorgóorlu nañ tay am ay ambition bëgg soppi école bi ci. fan yu bari ñu ni won nak dañuy tabax benen classe ci école bi lool projet la ba légui ñu ci nek mais ci bir ci au courant de de l'année bëggoon nañ ko sax def daw mais dañu am def suñu bilan ba pare mais affaire yi mënugul wonu antu far li am ci digënté bi muy ñuy tabax école bi benen classe comme bañ ñu ko yégué ni ñu dañ koy tabax nak association bi décidé di lay ñëw saytu école bi lu fi xewal la ñëw nañ fi récemment rek man rek fi ak Mme Cheikh Sène ñoo fi association bi ñu euh, le président du CGE Pape Wad, wax état des travaux yi fi nekk ak situation bi ak le besoin urgent bi nga xam le besoin côté matériel mais li manqué peut-être et il avait comme souci d'avoir un montant de 2 millions de francs CFA pour couvrir les main maintenant à cet effet ñu demaat def tour ci association bi ñu waxtaan ñu ni kon ñun nañ jël 1 million participer ko ci ci sen construction bi lool nak lañ ñoon def tay ci teewaayu directeur école bi monsieur Matar Diop ci téway aussi monsieur doyen Sadikh Sall ki nga xamni mo fi nekkal téwal fi inspecteur bu éducation et de la formation bu Thiès téwal fi nek aussi le trésorier l'intendant monsieur Aliou Niang également ay anciens yoo xam ni ci école bi ñu ne fekk leen fi ci école bi di aussi euh, loo xam ni ñom ñep ñu rafetlu ko ñu and ak aussi ñun ak wa association bi and ak suñu secrétaire suñu ay wa commission yi ak ñep rek ñi nga xam ne ñi mëna tew ñu tewal ñi nga xam ne ñoo fi mënul di sant nak wa association bi yëpp ci seen jëf yi ñi def effort financier yi nga xam ne ñu koy def ñi ne ci biir réew mi ak ñi ci biirum réew ñep à travers le président bu ñu ko santé rek di leen yobale ñep muy Mansour Gueye di wax ni mébét bi loolu la woon di sant également directeur école bi ci ni téye école bi ba heure bi ndaxte doyen sax di wax na ko léegi moom xam na continuité école mi demee sànq rek monsieur Kassé Aliou mi ngi koy xalifa euh, mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy rappelé forme bi ñu daan yoree environnement école bi bi ñu koy wax rek ci la ko directeur ni même même statu quo boobu lañ utiliser ba léegi di defar di rendre école bi meilleure à travers la salubrité et tout kon donc vraiment ñu ngi koy féliciter ci effort yi mi def mais également ci résultat yu yu yu favorable yi nga xamni mom ñu ngi koy am fi ci ci ci Médina Fall ñu ngi koy bàyyi xel ñi nga xam classement bi par rapport ak quand même Thiès école yépp vraiment di leen encourager sur les grands efforts qu'ils sont en train de de fournir pour ñu jëm booster élèves yi pour jëm jëm ci kanam mais aussi di sant kat yi nga xamni ñom aussi ñoo fi nekk di di def sen wall di yokk sen xam-xam ci élèves yi suñuy doom yi fi nek ci góorgóorlu ci loolu tey li lii benn pas la ci loolu jàpp nañ ni ñi nga xam ne association bi ak commission yi nga xam ne moo leen formé ay waa commission éducation xëy na dinañ jéem am programme boo xam ni dinañ ko jéem mettre en place lëkkaloo ko ak waa école bi ba ñu xam ñoom bi ñuy def ba mën a indil ben benn soutien pour élèves yi pour ñu gën a booster résultat parce que xam-xam du doy waaw xam-xam moom moom bu xasee bu dugg la connaissance est donc la personne ne peut plus jamais retirer d'elle-même mais c' est une chose que l'on peut rétribuer à sa juste valeur kooku benn tubaab moo ko doon moo donc luñ ci ñoom luñ xam naa ni ñu ñuy dégg dinañ ci wax beneen bi ñu lancé mooy association bi ñun moomuñu ko képp ku jàngee ci école bi rek ci nga bokk école bi am na 60 ans 63 la woon ba tey 2023 ñu ñaan képp koo xam ne jaar nga fi rek nga ñëw bokk ci association bi indi ci sa participation ci sa xel ci sa xalaat yow bëgguñu ñu am fii gisee bëgg nañu romb fii ci école bi ci lu bëree baree baree bëri école bi mën naa doon association mën na doon déclic pour développement de Médina Fall au delà de Médina Fall sax mën na doon déclic pour développement de Thiès ñi ko seq ay borom xel lañu ay borom xam-xam lañu tey ñu bëgg ak jëf lañu bëgg bëgg ak bëgg lu dox lañu lu baax lañu donc daal ñu ngi demander à ce que ku ci nekk di ko dégg rek suñu kàddu foo mën a nekk ñu ngi lay ñaan nga ñëw associé wu ci association bi ci sur les formes noo ko mënee rek nga ñëw bokk ci liggéey peut-être li ñu def tey ñun waa association des anciens élèves de l'école Médina Fall xëy na association yoo xam ne mi ngi fi am fi sax effectivement am na fi xam nañ suñu ay frères aînés yoo xam ne am nañ association xëy na aussi mën naa am yeneen judduwaat ci parce que génération yi fi jógee dafa bari xëy na bu ko gisee ñoom dinañ def la même chose ñu ngi daal convoqué ak invité toutes les personnes quand même toutes les donc euh, euh, bonne volonté ñu ñëw jàpp ci école bi mu mën a dox loolu moom ñu ngi ciy tendre parce que lii yamul kese ci ren dañoo bëgg changer école bi surtout yëpp classe yëpp lañ bëgg def nit ñi def tey chaque année au moins ñu jéem a taxawal benn classe mais loolu nag du ay moyens yu ndaw moo koy def il faut de gros moyens pour mën koo def donc ñu ngi ciy invité ñëpp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi bëgg a teg sa loxo ci école bi parce que dara gënu rëy nga tabax école tabax école moo gënu sax ëpp doole tabax jàkka ndax xanaa ne bala nga julli di nga jàng vraiment kon moo jiitu kon donc lii li ñuy wootee ci jàkka ji di fa naan li ñuy tabax lañu waat aussi di woote pour école bi di koy tabax loolu daal lañ amoon ci ay kàddu bu dee amul lu ma fàtte ñu ñu ñu ñu ñu yemale ko fii di sant ñëpp di di gërëm ñëpp ci teewaay bi di nuyu ñëpp jaa ngeen jëf incha allah jërëjëf